ba fu ñu toll nii fan ngeen ko teg. waaw bon ñun dañu jàpp ne xam nga euh, le président Ousmane Sonko jusqu'à présent il est électeur voilà parce que tant que la procédure ne pas épuisée yaa ngi ko nañu wax ni génne nañ ko ci les listes électorales. Mm-hmm. parce que actuellement euh, dem nañu ci kanamu tribunal. tribunal jox ñu dëgg. mooy le juge de Ziguinchor. Mm-hmm. donc euh, en principe et dans les règles selon la loi. il doit être intégré dans les sur le fichier électoral. toujours pas fait. Euh, bon man y a certaines informations sax ci disent que c'est pas confirmé qui disent qu'il est même intégré okay. par le par par par la DAF sur les sur les sur les Est-ce que vous comprenez? Mhm. Donc à ce titre-là si loolu il est toujours électeur. Donc ñun daa pour être euh, lu mu tudd sax pour être euh, candidat il faut être électeur may fàttali Sénégal disposition bi le président Macky Sall moo ko si dugal. parce que on avait un code consensuel ba nga xam ni vraiment moo yoroon stabilité Sénégal. Mmh. mais dañu gis ne régime bi fi nekk sous la direction du président Macky Sall muy ñëwee ba léegi dañu dugal ci code électoral ay ndëgg sërëx nga xam ne vraiment moo am problème yi yëpp ni am Sénégal moom moo fi yànde est-ce que vous comprenez mmh. donc c'est un régime qui a déstabilisé politiquement le pays. mais est-ce mhm. et ensuite mhm. donc pour vous dire donc ñun jusqu'à président comme ni mu ko waxee léegi candidat la ba léegi léegi nag suñu demee ba yoon. xamal nañu ni le président Ousmane dañ ko dindi sur les listes électorales parce que parce que lii la wala nii la demee wala nii la demee yaa constitué bu boobaa ñun on est en train de prendre nos dispositions est parce que ñun bëgguñu bëgguñu aussi li dal euh, le PDS wala li dal euh, taxawu Sénégal bi ñu fi nekkee euh, à à à l'élection de 2019 dal ñu sauf moo tax moo tax moo tax tamit Diomaye est-ce que moom tam. non sa candidature ne souffre d'aucune incertitude. candidature dafa leer dama koy teg si yii. xam nga ñu bëre dañu naan dañuy wax naan Diomaye Faye candidature am euh, am na jiixi jaaxa parce que dañoo dissoudre parti bi mais su fekkoon loolu kay état bi jarul muy sonn pour pour pour pour pour aaye Ousmane mu nekk parce que le le passif est dessous puisque passif est dessous kay. donc bu boobaa jarutul ñuy dem justice. di xeex Ousmane Sonko ndax mi ngi si liste électorale wala nekkul ci liste la nañu bàyyi noonu rek. parce que quelqu'un qui son parti est dissous ka nga xam ne nit ki parti bi dañ ko dissoudre puisque mënatul bokk ci élection yi donc y a aucun souci loi bi wax dafa leer. une candidature doit être portée par un parti ou bien par une coalition de loolu la wax euh, amu ci benn problème son sa candidature a été et bien portée par un parti politique récépissé parti politique la jëlee fichier euh, de parrainage yi. Mhm. actuellement si loolu lay defee les les les les parrainages. donc euh, ñiy wax naan jég naa certains journalistes ou bien je ne sais pas certains. Euh, aywa bàyyi amuñu benn crédit. doo ñu bàyyi non non non non non waxuma la yéen. xam nga aussi yéen man je man je dis que démocratie Sénégal su tolloo fii c'est à cause des journalistes. yaa ngi mais malheureusement dafa am ay journalistes yoo xam ne dañuy dundee journalisme mais dund lu ñu journaliste. est-ce que dund lu ñu journalisme man ñooñu ay critiquer. est-ce que vous comprenez dañu wax dans tout troupeau y a des moutons gras. Euh, absolument euh, euh, je ne sais pas euh, euh, brebis galeux. man ñooñu laay waxal waxuma yéen yéen vous faites excellemment votre travail je n'ai rien à vous reprocher même si toute œuvre n'est n'est pas parfaite mais li may wax ci candidature le président Diomaye Faye c'est une candidature boo xam ni amul lenn luñ ko mën a kii gis nga candidature boo xam ni incha allah dina jàll au conseil constitutionnel te incha allah candidat bi su yàlla dina taxawal sa coalition incha allah ñu defal campagne am directoire de campagne am ak sa bu dëgër. dem si sillonner tout le Sénégal pour def au cas où le pré le candidat de Ousmane Sonko ñoom fexe nañu ba bloqué ko. d' accord daañu jël suñu ay mesures pour parer à cette éventualité la